un bu commencé di jël en pleurant euh, benn nit moo ko njëkk a wax muy Boubacar Camara ñu teg ci tuuti ku mel ne Souleymane Jules Diop waxaat ko ku ci mel ne euh, j'ai oublié la troisième personne Bibi Baldé mooy euh, l'idée de reporter ces élections dina doon na permettre fekkee am na aussi que ñëpp ñoo xam ne xañoon nañ leen ñu mën a dugaat comme ce bulletin blanc bi nii parce que jamono ji ñu toll nii nii ñu bari jàpp nañ ne la situation n'est pas favorable amul maanaam wóorul sax ñu dem ci ndax jàpp nga ne loolu lu ñu mën a dégg la non loolu nekkul lu ñu mën a dégg élection yi dafa am date pour mu war a amee ndaxte bu ñu fi indi ay yenn. problème ak ñu nar a segg ñëpp. non ñu nar segg ñëpp nañu fexe ñu bokk suñu ko bëggee def ko en deux jours wala une journée. Hmm. wala même en vingt quatre heures. ça doit être combat non non non le report. ba pare ñu war a bokk bokk. maintenant combat bu ñu mélanger combat yi homme politique yi nañu liggéey wax ak askan bi mobiliser leen. Hmm. et puis ñeneen ñoo xamante ne mën nañu wax ak gouvernement bi daf benn pression ñu def ko Sénégalais bokk ci xeex bi pour Sénégal gu baax maintenant Euh, report élection dafa bëri ay problème parce que déjà légitimité mhm. le fait que conseil constitutionnel fu muy tegu naan président sa mandat jeex na mais yaay continuer la légitimité du président de la république loolu moo koy doole moom dafa newoon sax wàññi mandat sax mënu ko voilà kon yokk warul mën a nekk yokk sax mënul nekk mhm. donc loolu moom suñ ko defee mooy compromis boo xamante ne trahir nañu république ce serait une première au Sénégal non trahir bu trahison bu graaw lay doon ci Sénégal mhm. ndaxte mooy lu fi am mooy texte yi amul solo ñoom lu ñu bëgg rek dañu fexe ba mu am. Mm-hmm. après ñu ne bon